asalaamaaleykum mbokk senegaal mbokk àdduna bi yëpp di nuyu ñëpp di sant ñëpp di di ñaanal yàlla suñu way dawle yëpp yàlla na leen yàlla yërëm di ñaanal yàlla ñi nga xamante ne dinoo tawat nekk si hôpital yi ak ñu tawat nekk si kër yi yàlla na yàlla saafara jàngoro yëpp may leen wér si barke Seydina Muhammad rasulillahi sallallahu taala alayhi di ñaanal réew mi jàmm ñun nag ku gis suñu toogaay bi xam ni nekkuñu ci jàmm te nag ñu waroon nekk ci jàmm lañu ndax réew bi di Sénégal jiwuñu leen lu dul lu baax jiwuñu leen lu dul jàmm ñu nekk nag ay sénégalais bàyyi métier yëpp taamu armée engage wu volontaire dem armée ku sañoon nag lépp looy dugg da si siy dugg ak bisimilahi rahmaani rahim génn seeg alhamdulilahi rabi alamin yàlla dogal am suñu moroom yoo xamante ni des na su tollu xare yi ñenn ñi fi des muy ñun ñii gënuñu ñooñu gënuñu ñooñ de gënuñu leen de ndax seen ñàkk fayda taxul ñoom ñu dem ñun sunu fulla taxul ñu toog fi waaye nag dund loo fekkee comme yàlla dogal na nag suñu dund gi am muy bonus dund gi di bonus yaakaar naa sunu dund gi ñu dund état bu Sénégal waroon na noo taxaw nu mu ñu war a taxawoo dëgg dëgg dëgg mais taxaw bi dafa des jamonoy mag Sall ba tey nag invalide yaa ngi dund ay jafe-jafe yu méttee metti jamonoy Ablaye wàdd sax laay wax déjà suñuy pension baaxul. sunu faju sunu faju baaxul suñuy médicament suñuy pharmacie nu ñuy joxee garab baaxul état bu bees bi toog nag di lancer message président Bassirou Diomaye Diakhar Faye muy chef suprême des armées ñun ñëpp nekk ay ndaw am nag si ñoom yaakaar bu baax a baax a baax ba na président Macky Sall nag avant tout dañ koy gërëm parce que commission ad hoc bii tax tey ñuy rey suñu bopp ñu fay ñi bàyyi ñii moom moo ko moom moo ko joxoon defaloon ñu ko si nguuram mais malheureusement fay bi àggul beneen nguur bu bees ñoo toog yàlla dogal ñeneen ñi des ñëpp fay nañ si fi mu toll nii mille et quelques yoo xamante ne avancé la leen jox ñu joxoon dat nag nañu woon. fin juillet dinañu dinañu dinañu fay invalide yëpp ndax fay fay bi moo ñu tàmbali woon depuis le 10 décembre 2023 ba léegi décembre ñëwaat ba jusqu'à présent ñu nuy xaarloo tey suba tey suba tey suba kon ñun xaaran ba sonn fekkee yar am nan ko fekkee patience tamit am nan ko mais invalide ku koy jàppale danga koy jàppale si bu si bu mu gaaw ndax tey suba rek am na kenn ku wàññeeku su ñun a kaaw Njaay commando jour bi ñu ko virelee xaalisam jour woowu la wàcc liggéey te amaana fekk ko dañ ko ko fayoon ci décembre ba kon dina dundee xaalisam tuuti sax yàlla nag mooy dogal mais sunu dund dafa metti sunu pension yi nañ koy yokk sunu pharmacie plateau bii tamit ñu tëj di ñaan autorité yi ñu ubbil ñu ko ndax pharmacie plateau pharmacie la boo xamante ni dafa amal njëriñ invalide yi seeni garab nekk fa même su fekkee dafa am problème mu kayit état bi parce que pharmacie mënu fee nekk quarante ans di joxe garab ñu xëy xëy na amul kayit ñun yooyu yëpp sax du suñu problème mais suñu problème mooy que ni balaa état di def benn décision pour tëj pharmacie boobu waroon noo waxtaan ak ñun ñu ut solution ndax xam ni pharmacie boobu daf ñoo amal njëriñ te invité yëpp a ngi jooy di ñaan autorité yi ñu ubbil ñu pharmacie boobu ndax loolu bokk na ci li ñuy jooy te amaan suñ ko ubbee li nu naqari du ma ne day jeex de mais dina wàññeeku tuuti benn bi ci topp muy médecin militaire yi bind bi ñuy bind metti na trop dañ wàññi rek wàññ wàññi suñuy garab rek yokkulu ñu tuñ te yaakaar naa ni réew mi dañ ne réew yokkute ko yokkalatul waroo ko wàññil invite soo ko yokkalatul waroo ko wàññil ndax ku nekk blessure bi nga amoon wala maladie bi nga amoon séquelles yi day yéeg day dox kon yaakaar naa ni ku si nekk tey sa feebar dafa yokk mais wàññookuwul munoo am nag feebar muy yokk wala blessure muy yokk ñu bëgg ëlbati ko bëgg wàññi say garab loolu day metti te teguñu ko fenn lu dul rek jot ay ordre wala bëgg a saqanal poosu état ndax état li muy fay suñu dafa cher nee nañu mais ñun bi heure liggéey jotee dinoo liggéey réew mi musuñoo tànkam lu réew mi tey suñu autorité yi musuñoo wax ñu teg ci baat musuñu wax ñi jaar leen fii ñu teg si baat lépp lu ñu mës a def loo def nañ ko lépp lu ñu mës a def loo def nañ ko ak ñoom niñ ko bëggee musuñoo tooñ armée ndax armée ku xam ku xam armée xam ni armée soo ko tooñee du la baal comme nag li warloog armée yëpp def nañ ko kon suñu demee ba am si ay tolof tolof armée war nanoo mën a delloowaat njukkal ngañ ngañ ñu nag kenn newuñu diw wala ma sàmm wala ma paate déedéet noo bëgg état bu Sénégal bàyyi ñu xel xam ni ñun ñoo ngi dund ay jafe-jafe est-ce que yoon la réew mu toll ni Sénégal ay ay ay blessés de guerre comme ni ko général euh, euh, kii waxee Mbaye Cissé ne buggul dégg sax baatu invalide blessé de guerre la bëgg a dégg. heure bii fekk ñuy ñuy ñaxtu heure bi waroon fekk ñuy naan suñuy garab ñu am lu nu naqari jox cër nag état bu bees bii nguuru ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko muy gouvernement am jox leen cër moo waral génnuñu ci mbedd bi dina ñaxtu ndax ku nu xam xam ni ñun jamonoy jamonoy jamonoy jamonoy Ablaye Wade ba tey lépp lu nu mës naqari rek si tali bi lañ koy dem du fajee mais ñoom jox leen cër a tax bi nu toogee ba tey nangu ñoo sax génn si tali bi moo tax nag ñu def grève de la faim mënuñu ko de ndax ay gelwaal nit lañu ndax fii ku fi nekk rek garab ngay mottali ko mbooloo bi ëpp na lii mais ñu si bëri instant yi noo daw dem seen médecin parce que am na ñoo xamante ni tey balaa ñoo tuur ndox il faut ñu dem hôpital pour tour ndox xam nga loolu metti na koo xam te ni démb démb rek si suba si dafa ñëw saf tuur ndox mu ni maa ngi dem IHO parce que damaa saf tuur ndox xam nga loolu metti na man ma xalaat sama bopp ni man su ma bëggee tuur ndox dinaa dem si douche bi léegi tuur ndox loolu dafa metti am ñoo xam te nekkatuñu góor mënatuñoo am se mënatuñu am doom à vie parce que seen ngóor a yàqu na te lu ko yàq mooy armée ndax du noo guerre ñuy dëgg ay miin miin yàq seen sexe métti na li ñuy dund métti na bépp handicap booy xalaat Sénégal Invite Banque yi dund kon médecins militaires yi xam leen ni ñun ak yéen benn lanu seen njaboot lanu yéen da ngeen waroon fekk ñu nuy def lu ñaaw sax ngeen ñëw jàppale ñu mais yéen sincèrement kuy signé sax di dem ci médecin militaire sax sa xel du dal yàlla xam ne stress ngay demee ci médecin bi te médecin dans les normes da nga war a ñëw nga war a indaale stress gis ko sa stress wàcc médecin bi da nga kaa war a gis sa wér-gi-yaram yokk mais invalide day xëy war a dem si médecin bi di xalaat médecin bi su ma demee parce que invalide li muy def si boppam mooy médecin bi baa du wàññi samay garab te effectivement noonu lay demee day wàññi say garab nga dem pharmacie balaa ngaa mën a xam nag ba xam wàññi na il faut nga dem ba pharmacie ñu dugal ko si ordinateur bi carte bi nga soog a xam ne wàññi na sa garab imagine toi nga am valeur u cent mille francs si garab médecin bi ko ba ay vingt cinq mille ay vingt mille am na loolu dafa metti léegi kook finalement yeneen garab yi moo koy mooy jël di ko jëndal xaalisam te pharmacie yi des nii instant bi di joxe garab vingt mille lan loon joxe par jour léegi wàññi nañ vingt mille quinze mille francs par jour loolu lan la mën a invalide bi invalide bi nga xamante ni tey benn garabam rek benn boîte garabam rek mën na jar trente mille léegi invalide boobu moom mooy mujjee sacrifice wu génn xaalisam pour motteel pour jënd garabam kon carte à puce bi lan la koy jëriñ kon te benn pharmacie rek lañ fi gisoon boo xamante ni moo nañ moo nañ jàppale si loolu mi pharmacie plateau bi ñu tëj ndax moo daan jël montant bu mag di ko jox invalide moo tax invalide taamu ko te seen normal moom seen normal facture am di yokk mënul tollook yeneen yeneen yeneen yeneen pharmacie parce que invalide yi fay facturer dafa bëri parce que invalide foofu la ñuy gisee seen bopp kon nañu bàyyi pharmacie boobu di ko ñaan autorité yi ñu oyofal mbir bi ubbil ñu pharmacie boobu ñi des 91 personnes yi nga xam ne jotaguñu dara ñu jéem leen a fay ñeneen ñi am xam te ne moitié tamit la am ñu jéem leen a fay jublu si point yi jéem a yokk suñuy pension depuis démb ba tey amul benn autorité nag boo xamante ni teg na fi tànkam looloo ñu gën a metti ndax intérieur yi ngi nii ja dend ak ñun bâtiment bi ñu nekk ak ah, intérieur ñoo denn ministre ba fa nekk muy Jean Baptiste Tine di ministre de l'intérieur gendarme la si njabootam la ñu bokk mënuñoo génn si njabootam ministère de forces armées yi ngi nii suñu wet général biram Diop nekk fa militaire la mun ñoo génn si njabootam primature ngi nii premier ministre nekk fi zéro mun mënuñoo génn si njabootam palais yi ngi nii zéro mètre mënuñoo génn seen njaboot amaana nag danoo jàpp ñu la moo tax faalewuñu mooy parce que danoo politiqueul moo tax suñuy mbir di metti amaana lii fekkoon mbiru politique la ba tey ñoom ñëpp ku si nekk sol nga si dàll ñëw fi ndax ñoom du ne xanaa du ne ñoom yëguñu lii su ne ñoom yëguñu lii rek kon xanaa ñu kon nekkatuñu kon ci état ndax lu toll les anciens militaires invalides service seen réew depuis dem ba tey policiers yi fanaan fii policiers yi kam moo leen yebal mais seen kilifa yi ñoo leen yabal kon ñoom xam nañu kon ñoom li xew renseignement yi ñoo ngi ñëw di jël di yóbbu kon ñoom xam nañ li xew kon dañoo tànkamlu pour mérito wuñu ku nu tànkam lu ñun mérito wuñu loolu kenn waruñoo tànkam lu ndax ñun mosuñu leen tànkam lépp lu ñu mës a sant rek defal na leen ko kon ñun kenn waruñoo tànkam lu depuis démb ba tey amul benn autorité bu fi teg tànkam taw ba temps wane nañu yar na nañu teggin di wane suñu naqar ndax lan xiifal suñu bopp bañ a naan suñuy garab démb ba tey ñuy évacuer ay nit démb si guddi gi am suñu collègue boo xamante ni fii dafa sonn. 23 heures ñu woo sapeur sapeur jël ñu décroché ñu li mu nu tontu nag naa ko leeral pour autorité yëpp dégg ko ki ma décroché démb monté xaw ma kan la mais damaa bëgg mu leer démb 23 heures ki ma décroché dama ko dama ko woo 18 mu décroché ma ne ko les anciens militaires invalides daa am koo xamante ni ñooy def grève de la daa am koo xamante dafa sonn mu tontu ma mu nu ma sànq am na ku fa jëli jëlaat keer mais kooku dafa bañ mais su ko neexee bañ. parce que santul woon dem te sax du kook la la évacué keneen moo sol noon mais ni comme si ñun dal loon defanteeg ñun parce que kooku bañ a dem bañoon dem moom moo leen naqari ba tax na ñoom ñu leen di woo jëluñu dilaatuñu ba ay deux heures du matin dunoo mujjee dem si policiers yi nga xam te ne fii loon fii loon fanaan ñu dem si ñoom wax leen ko seen adjudant bi ñëw ñu wax ko ko mu woote ñëw ba si ñun ne ñu gaa yaa ngi ñëw ba tey si suba lañ koy soog a jël si tey ay 11 heures te ñun ñoo woote waat insisté te nag su yàggoon su yàggoon tuuti ñu dañuy génn si tali bi ndax nag du ñu toog fii suñu collègue di bëgg a dee suñuy loxo dafa metti nan ñu bàyyi xel nan ñu bàyyi xel sàppoor su leen ko woo vingt fois daa war a ñëw parce loolu mooy liggéeyam loolu mooy rôlam parmi nous y a des sapeurs-pompiers yoo xam ne ay anciens sapeurs-pompiers lañ fii bépp corps militaire bépp corps paramilitaire moo ngi fii kon ñoom waruñu ñoo sàgganee xaw ma nag ay ordre yu ñu jot la wala déet nañu dimbali te bàyyi ñu xel grève de la faim nag duñ ko bàyyi luñ si fekk rek ñu xam ne lii moon si fekk tey képp ku fi wàcc liggéey ñaanuñu ko yàlla mais nañu xam ni état bu Sénégal mooy responsable ndax moonu bokk yilif ñu am lu naqari bopp ba tey gisuñu si kenn dégguñu si kenn mel ni comme si que dañuy kokkali mel ni comme si que ñun tekkuñu dara si réew mi te chaque jour ñu gis senegal ñuy def débat yoo xamante ni amul bopp amul genn lii la moo gën a la moo gën a sérieux lii ñuy def tey lii te ña ñoo koy def nanu xool ñi koy def ñan la ñu soloon tenue bi porté woon drapeau bi di xeexal seen réew nanu xool loolu nanu xool ñooñu xool tey ñan ñooy def grève de la faim nan ñu jàppale nan ñu jàppale te am si ñun yërmande yërmande baax na trop àkk nag dafa sew àkk dafa sew gis nga ñàkk gis ginu ginu ñàkk gis suñu bopp si réew mi mën na indi sax réew mi metti ndax nit mënul tuur deretam ndax réewam sonn réewam nga war ko neexal war ko faj ay war ko war wara war a xolam ngay tàngal xolam loolu mën na delloo ginnaaw réew wallahi azim loolu mën na delloo ginnaaw réew ndax àq dafa sew te ñun dañ ñoo ameel àq réew mi daf ñoo ameel àq muy ku mu mënti doon nag ameel nañu àkk am na nag lu nu metti trop lu nu metti trop am nañ ko te lii nii ñu def nii neexuñu mënoon ñoo fajal suñuy soxla ci sutura mais xoolal li ñu def nii tey toroxal ñu ay père de famille ñoo fi nekk bàyyi seen kër ñaari fan toog fii di xiifal ñu évacuer nit ñi autorités yi déggu ko toog fi nu toog dinu tànkamlu waaye amul problème ñun du tax ñu dellu ginnaaw fi nu toog la toog incha allah rabbi jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi dund Pape Moussa Diop. chargé des affaires sociales Kamis euh, li ma bëggoon wax rek daanaka damay synthétiser rek ndax li ma doon wax yëpp sama naatangoo ba lay wax na ko parce que ñun ay invalides militaires lañu fii am na nay gendarme am nay policier am nay sapeur am nay douanier am na ay militaire am na lépp am nay pénitencier am na tout corps corps boo yaakaarul rek euh, militaire ou paramilitaire am na fii yàlla dafa def nag xeexalu ñu woon sunu bopp liggéey lu ñu woon aussi sunu bopp état lañ doon liggéeyal ba yàlla def ñu am ay gàllankoor bi ñu amee gàllankoor yi état war ñoo jël en charge seetaan ñu genn wàll gi man damay wax rek sax am jot di wax mais bari na ñoo xam ne ñi ngi tëdd fii yor pathologie yoo xam ni bu ñu téyoon micro bi danañ wax lu gën a kawe sama njot wax lu ëpp li may wax mais métti leen jàpp yàlla def na ñu ngi commencé grève de la faim bi depuis bërki démb ça fait deux jours trois jours ñu ngi leen di jël di évacuer hôpital principal ak IHO loolu du suñu coobare ñaar ñi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye chef suprême des armées ak monsieur Ousmane Sonko ministre premier ministre dañ leen a jox cër rus leen trop mais mën nañoo def comme ñi fi jógee muy Ablaye Wade ancien président ak Macky Sall ancien président génn ci mbedd mi xeex ak ñoom reyante ak policiers yi li ñuy faj daldi di saafarawu mais ñii dañ leen yaakaar jox leen cër cër bi ñu leen jox nañu ko delloo lii may wax Bassirou Diomaye Diakhar fay bi nga xam ne mooy chef suprême des armées du président République moom ma ñu toogaloon cité kër góor gi wax ak moom mu indi ku ñuy wax Birame Khoudia Lo doyen maître Tall ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen li may wax mën na cee mën naa ko jël à témoin la ñu waxoon nag ñu koy xaar boo mu toogee ba léegi gis ñu ci dara pharmacie yaa ngi ñu tëj te tàgguwuñ ñu xamuñu lu tax ñu tëj ko on ne sait pas ni les tenants et ni les aboutissants ñi war a jël seen i garab jëluñu ko ndax pharmacie yi li mu attan benn pharmacie attanu ko fi bu sa mbootu jotul doo mbooti gàmb donc ñi ñaa ngi am seen i soxla ñii dañuy jox ñii ay dix mille francs par jour par. jours ñi leen jox quinze mille francs te ñu ay ordonnance soixante dix mille cent mille francs loolu tax na ba boobaak léegi récolté nañ fi ay morts yoo xam ni je peux citer le premier mort décédé entre l'ambassade de France et la pharmacie et l'hôpital principal Ibrahima Diop ñi faatu ñëpp nag yor nañ leen ci benn liste mais rek keroog layoo yaya dax yaa ngi dégg léegi nag ñun li ñu am ba di ko def ñoo ngi tëdd fii di xiifal boobu ba léegi benn autorité jaaragu fi kenn fi jaar ce matin un certain lieutenant Ndiaye rendre nañ ko compte ba dem na gisaatuñu keneen ànd dafa neex nag moo ko mooy kaw bàyyi mu dem ay mbagam ñun du suñu yëfi bopp moo ñu tax a gaañu lii ñu dal tey bu fekkoon du ñoom duñu ñu taal dugg seen bureau climatique yi di fa toog ak di jël ay ordre ak a joxe ay décision ministre des force armées ci ñun la bokk ministre de l'intérieur ci ñun la bokk donc seen jaboot lañu donc lu ñu war def mooy comme dañ leen jege ñoom ñi ngi war a jëkk a gestu ci lañ bokk pour président de la république jot ci premier ministre jot ci yëf yi saafarawu médecin yi bind garab yi jàmbur di ko wàññi surtout que nekk Thiès ñu koy wax manga leet naa la damay tudd turam cité ko nommément yaa may dégg beneen bi ci des Abdourazak Ndiaye di santé moo joxe instruction yi ba dem tukki nekku fi damay cité son nom nommément te mbiri puce yi lu ko fi indi dindi fi kànn yi Cheikh Wade CMGA ak Omar Sarr gorom bu intendance ñoom ñaar ñoo fi teg loi ak décret indi fi note de service fa la rëq-rëq jóge am fii li fa la ñu ba mi toppee ba nga ni di ñu faagaagal di rey nit ñi benn par benn li ñu am nag pour wax leen jël nañ ay décision duñ jóge fii tànk que li ñuy saafara saafarawul duñ fi jóge àpp nañ ko nag ba njaajaan njaay tëggun dënd nag ak sémmiñ neex benn naqari benn ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk Sénégal maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ak sa tur ak sa sant xam ngeen ni kat invalides yi ñoo ñëwaat fii yàgg na noo ñëw ndax suñuy droit suñuy droit nan nu ko jox ngiri ngir yàlla du ma wax sa ngir yàlla ñoo ko moom suñuy droit li nga xam ni mooy médicament yi invalides yi jëlatuñu seen garab normal ak sama jëwriñ yi lu ñu wax pharmacie yi nu tëj plateau ak lii nga xam ni Macky Sall moo nu ko defaloon ñun invalides yëpp ñi ci biir ak ñi ci biti nag invalides yëpp ci bokk yam ñëpp lañ war a fay modèle 82 10 égal modèle 82 10 ki ci camp bi ci la bokk ak ki nekk ci biti am modèle 82 10 sama wax du ci bari nag autorité yi ñaax na leen. ñaaxati leen kon ñun duñ leen may dara dara duñ leen ko may li ñuy laaj nag ñun ñoo ko moom danoo xeexal réew mi xeexal ko dem ak moom fu ne indil réew mi ay milliards les fonds d'OPEX ñun gisuñu ci sunu bopp ñun invalides yi militaires yi gisuñu ci seen bopp ba pare am na ñu nu fay am na ñu fayee koo gul kon nag lii ñaaw na ci réew mi ñaaw na trop mënoo fay ñii bàyyi ñii loolu affaire rébellion lay indi ci réew mi rébellion kon nag ñu ngi ñu ngi wax le chef suprême des armées moom la ñuy waxal na fexe invalides yëpp fayeeku ak le ministère des forces armées biram Diop la mu waxoon ñun gisu gisuñu ci dara dara gisuñu ko ci ma ciy dolli muy Mbaye Cissé la le général de larme senegal moom mu ne invalides yi nekk ci biir bu ñu leen kaasal man depuis dama leen di kaasal biir ak biti invalide laa woon nekk arme ñunu ma doo dem campagne doo def permis kon nag invalide yooyu ñoom lu ñu am amuñu dara ñi nekk dans l'armée lu dul prêt ak seen salaire kon nag ñun lu ñuy bénéficié woo invalide yooyu war nañ ko bénéficié woo loolu rek laa amoon lu ma ciy wax wasalaam. maa ngi leen di nuyu ah, foog naa ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ma précédé ci wax ji li ma ciy teg daal xam naa ne dootul bëri ñun nag ay euh, corps paramilitaire la ñuy jóge mais ci corps militaire la ñu commencé. man classe 1974 une la euh, def euh, seen bac 3 jóge ca ñëw douane ñu invalide kon invalide u militaire ak invalide u paramilitaire ñëpp ay invalide lañu léegi nag euh, lii nekk na loo xam ne ñaxtu boo xam ne ah ñu ngi ñaan daal autorité yi ñu def ci saafara ndax kat alors ñii nga xam ne ñoom ñoo ma précédé parce que samay doom lañu ñii samay jarbaat lañu te lii nga xam ne ñu ngi koy ñaxtu nekk na ñaxtu boo xam ne ñaxtu bu yàgg yàgg yàgg la danga xam ne ah, am na ci ñu bëri ñoo xam ne ñii faatu nañu ñii nekk nañ ci ay jafe-jafe yu métti métti métti kon nag ñuy ñaan daal euh, autorités yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu ngi leen ay ñaan li lay war a ñu def alors saafara ci mbir mi loolu daal mooy li nga xam ne ah moom la ñuy ñaan nañ ci def saafara ndax mbir mi alors ñu saafara ko ndax kat alors ñu ci bëri man sama sama sama sama sama sama alors ci li nga xam ne man moo ma concerné man sama sama carnet carnet de santé depuis deux mille vingt et un bi léegi carnet baa ngi nii ak man deux mille vingt et bi léegi damatuma sax pour signature ndax dama mujj toog ndax da ngay xëy la matin nekk alors euh, kilifa ak suñu age bi ñu yore nii man maa ngi ci soixante-dix ans da ngay xëy le matin dem garnison pour ñu signal la ñu naan la ay ñaari carnet la ñuy signé ay ñetti carnet la ñuy signé finalement man dama mujj gett sama carte à puce bañ ma ko joxee ba tey nii kenn mosu ko laal mu ngi nii intact sama poche kon nag alors mbir mi nekk na mbir moo xam ne mbir mu doy waar la man nag dama ñëw représenté élément douane yi nga xam ne ñu ngi ci biir corps paramilitaire yi te nekk ay invalide man maa ñëw représenté leen man maam Koor Njaay laa tudd maa ngi leen di nuyu di leen sant yaa ngi jëf